non chauffeur bi da doon li ma gën a yaakaar parce que trois rames moo nekkoon suñu diggante mais dafa mel ni da doon nelaw et mu doublé bu mu dublee kenn kenn heure boobu la ki non dajewul ak kenn dajewul ak kenn moom moom lu mu doon daw moo xaw ëpp waaw après mu mu kii frein mu mu kii nu mu tudd sax waaw bus pa la def. oto bi tourné. waaw dégg naa am na cinq personnes mais 4 personnes yi laa gis fu ñu ngi Sam Dakar Sam. dañ doon dem fii Manda Douane pour dem pour dem Guinée. bon en fait on était quitté à Dakar vers les heures du matin. On est venu jusqu'ici vers le 3h30. Euh, Moi, j'étais connecté. Après, mon ami m'a dit, ah, déconnecte-toi, tu vas te coucher. Après, je te rappelle le matin, on est venu, il y a des policiers qui nous ont arrêtés ici. Une fois qu'il a dépassé le policier, on est venu 30 minutes, le véhicule s'est renversé. Il y a eu plus de, il y a eu 4 morts. J'ai perdu une proche, euh, sa fille à côté de moi. Je ne sais pas où, 40 personnes. Il y a eu 10 personnes qui ont fait leur radio. Les autres ont des plaies.